Fils de maa lay nuyu. waaw maa lay fay ginnaaw ba ñu sant yàlla julli seen def ñu sant suñu ñaari waajur bu baax tey moom daanaka géejawaay ak mondu làmb ñu am naqar daal tey. Mhm. àdduna Père Balla euh, seen diggante yéen ñaar lan suñu diggante moom bu ma la moom fii la ñuy fanaan ndax Baye Balla bëgg na ma bëgg boo xam ne dafa dafa jéggi doyoo quoi Baye Balla sama xarit la kenn du ma laal école ba bu ñu ñëwee ba nii. bu ma tardé entraînement sax bu ñëwee gars yi du entraîné sax mu ne leen bàyyi leen ko kii xale la xamul dara barki Serigne mag dafa maa bëgg bëgg bëgg ba doomam monsieur danaan la ñu ay sam papa moo la reewal kenn du ma laal école ba billaay dafa maa bëgg bëgg trop waaw. addunaam noo ko yëgee. waaw métti rek damaa xëy ñu woo ma téléphone ne ma baala baale yi ngeen bàyyi rek ma tëb fekk maa ngi nelaw rek ma tëb jug xaw ma sax lu ma def maa ngi ba léegi lekkuma damaa yeew rek sangu rek sol sumee rek ñëw lekk sax jaaruma si. ba léegi. wallaay jërëjëf.